Cissé Abdoulaye ñu lay nuyu di la dalal ak jàmm sunu plateau. Et eh, il partagé. Euh, alors Abdoulaye. Euh, gis nañ ne <laughs> jàngat bi la nar a ndékkee wala ndékki li ngay ne Saara ko jël. nekkati jàngat bi la jàngat bi la nar a ndékkee. nga euh, ni ku ne taa micro moom tàkk na bu fayal ak yaa ko fay. <laughs> yow nag soo ñëwee rek. moom moo ndekeegul vieux Diouf moo ndekeegul. vraiment fi amul benn problème nit. Ablaye talal sa micro boog. ok c'est bon. voilà kon c'est bon apparemment waa nuyuwaatal kon. Sarah c'est un grand plaisir de te retrouver j'ai l'habitude de te retrouver ma ko ci wolof euh, en général ngoon gi ak suñu. affaire de doomu baay yooyu mais c'est un plaisir d'être là on salue bien sûr les deux autres. <laughs> il est partagé euh, <laughs> Abdoulaye Abdoulaye Thiaw mi na si dëkk bi de waaye yow tey da ngaa tànn yóbbu lu fa sore sore sore lu waral loolu waaye. mais parce que fenn soreetul léegi lu xew lu xëyee Amérique wala xëyee Paris wala xëyee Allemagne yendu si fii. Mhm. te. élection wu Amérique mooy élection boo xamante ne xëy na bu ñi amoon sañ-sañu voté sax. dinga xam ni dana féete boor balaa ñu cay egg. évidemment on est à quatre mois fi mu toll nii lu ko lu ko matul sax. Mhm. parce que novembre la matatul quatre mois léegi. ci lañ war a tànn mais li ci yéem mooy xamaguñu sax candidat yi. alors ça part veut pas que dafa niroog lu xewoon ci yeneen i réew yu bëri yoo xam ne dañuy jege élection du ñu xam kuy dem ku dul dem noo dafa am nu mu demee rek ba ba benn camp bi amaguñu seen candidat boobu ba léegi te Amérique moom ku ne xam ne élection yi entre démocrate ak républicain la donte day am yeneen i candidat on ne le dit pas souvent assez mais il y a énormément d' ci élection bi mais ça se joue toujours entre démocrate ak républicain yi loolu du lu bees mais baax na ñuy wax ni quand même am yeneen i candidats yoo xam ne nii ñoo bokk ci élection bi ak ay élection sectorielles yoo xam ne sax lu bëri dañ koy voté waale ci pendant ci ci pendant élection boobu mais évidemment lu xew Amérique soxal nañu parce que très souvent aussi day conditionné lu bëri ci lu xew ci àdduna bi à titre d' exemple fii Sénégal rek barki démb président de la République mu ngi dalal Euh, secrétaire d'État américain dalal na fi aussi ñi nga xamante ni ñoom dalal ambassadeur américain dalal na fi ñi nga xam ne aussi ñoo yor programme bu mag boobu nga xam ne mooy MCA te vraiment war a gunge Sénégal ci accès universel à l'électricité mm-hmm. te ñu xam ni gouvernement américain moo koy piloté directement loolu aussi c'est très important parce que ci jamono bi Donald Trump ñëwee ba falu dafa xawoon na jël sax option ci ne daal moom léegi ndimbal li dem ci àdduna bi dañu koy concentrer ci seenum réew donc nga gis ni am nay implication lu ñu mën a wax la évidemment booy wax Amérique fekk fii lu ne lu bëri nekk fii waxuñu ko peut-être que danañ ne lu tax mais da ngay jàpp ni à un moment donné xëy na pour dire un mot très rapidement ci li nga xam ne moo nekk ci penc mi invité invité RFM matin bi dellu siwaat na ci lu bëri mais réew mi foog ñu dépassé c'est c'est une conception général parce que lu baax feneen souvent dañ koy bàkk fii mais bu xewee fii ñu ne warul xew li ma ci jublu mooy dañu dépassé sax débat wu diw peut-être que ci ñëwaat sax parce que man ci sama filu waxtaan bi la bokk en fait parce que dinañ ci ñëwaat certainement Donald Trump soo xoolee tey wax ma ni référence la mais tey defe naa dépassé nañu foofu ci famille nekk ci biir alors li li bon rek mooy. famille boo xam ne amul compétence amul capacité pour bokk ci li nga xam ne mooy gestion wu état mais xëy na tey àdduna war na dépasser fu ñuy tënkee nit ci ne da nga bokk ak diw da nga bokk parce que finalement ñëpp ay mbokk lañ mbokk moom boo ko bëggee seppi ci boo ko bëggee seppi ci direct seppi ko ci alliance dina compliqué trop maintenant fi ñuy xaaree nit rek mooy ak ku mu mën di doon mu def preuve ci ni am na compétence ñaareel bi. dañuy faral fii Sénégal dafay nekk débat boo xam ne ci opinion bi la di opposer par exemple la conception francophone ak la conception anglo-saxonne ci yi nga xamante ni nii xëy na ñu diplôme te pourtant day am ay réussite ñeneen ñi di diital y a pas de vérité sur ces choses la y a pas de vérité toute tracé mais évidemment lu nit am diplôme am ngëneel la ci ku nga xam ne ni amul diplôme loolu moom li mooy di ñàkkal fayda jàng ak diplôme lu nit jàng yokk na ko lu mu jàngul nag xëy na mun na ko koo xaj mais peut-être que le pays peut faire l'économie vraiment maintenant de certains débats pour que ñu avancer ci des choses de fond évidemment la patrimonialisation de l'État yi yaay doom papa ak leneen ak leneen loolu moom xëy na war naa war naa jeex war nañ ko dépasser en fait bu fekkee ni nit ñi am nañ ay compétences maintenant c'est ça qui doit le véritable débat Sénégal ak li fi nekk ci ay ressources Sénégal li fi nekk ci ay compétences waratuñoo sax xalaat fal nañu nit di xalaat ndax ndax am na compétence yem déet parce que soo xoolee parfois et ça moi ça loolu ma gën a intéressé ci peut-être nomination yi gis nga pouvoir buy nommer nit te xamul nu mu koy euh, lan lay mettre en avant dafay tey sama xel man nommer nit ne spécialiste pour man loolu. Hmm. amul kiiwul c'est-à-dire da dafa oyof daal. wala nga nommé nit ne diplômé de. diplômé de amul da ngay wax diplôme bi mu am. mais diplômé de nangam loolu daf dafa daf c'est trop léger en fait te loolu sa day indi xel ñaar maintenant mën nga fal nit yow tegu ko ci diplom au moins assumé nga. Hmm. mais boo ko bëggee wékk ci diplom ba pare munoo wax nit ñi ban diplôme la. dafay def dafay oyof maintenant y a pas vérité comme j'ai dit man pour man y a pas vérité ci ne diplôme la ñuy fale nit wala xam-xam beneen la ñuy fale nit parce que ñaar yëpp nag am nay cas réussite fi mu bonee rek mooy fi nga xam ne nii nit dina ko nekk du réussir maa ngi sori Amérique sax nañ delluwaat. yaa ngi sori Amérique yaa ngi sori yaa ngi ubbiwaat yeneen plan fi mu nekk nii. ndax li ma bëggoon a yokk juste mooy xëy na Ablaye tamit lu kenn mënta naatable mooy conflit d'intérêt bi am nag bu fekkee parce que démb sax ñu ngi koy waxtaanee maanaam mën nga fal nit koo xamante ne sax am na compétence mais bokk gi muy bokk ak yow dina tax ba nit ñi. xoolatuñu compétence am dootuñu ils vont dañuy nekk tellement si li nga xamante ne moom moo waral fal gi ak mbokk bi ngeen ngeen am ba loolu sax du ñu gisati sa sa ay compétence évidemment eh, euh, conflit d'intérêt li tax conflit d'intérêt conflit d'intérêt conflit d'intérêt mu garaaw mooy ça crée les conditions légitimes de suspicion mm-hmm. conflit d'intérêt bu ñu ci taxawee rek du moment bi ñuy soupçonner conflit d'intérêt la ñu def lu ñu warul def mais ça crée les conditions légitimes de suspicion et loolu da lay yàqal tardé la parce que loo def soit ci conflit d'intérêt bi la aaju mm-hmm. mën nga sax jël décision boo xamante ni légalement normalement favorable na fi nga xam ne nii am nga ci moom intérêt pourtant nga teg ko ci yoon mais intérêt bi la ñuy gis moo tax conflit d'intérêt réew yu progressiste yi. Mhm. mel ni ki Amérique ñoom am na loo xamante ni na la ñuy doxalee dañ ci sori trop ba am ci réglementation xëy na nag ñun c'est difficile pour suñu pays parce que parce que foofu. conflit d'intérêt ci affaire ci business lay nekk en général mais du du conflit d'intérêt pour relation euh, familiale parce que foofu famille yaatuwul comme fii. Mm-hmm. mais fii boo fi bëggoon a tënk nit ci famille. xanaa man mi nga xam ne oo ma fi bàjjan peut-être que moom moo gën a yomb mais Saara yow xam nga xam nga yow xam nga yow waa dëkk bi nga mm-hmm. c'est-à-dire ñëpp nga xam ñëpp nga ñëpp nga bokkal mm. donc dina difficile sax ñu bañ a gis lien ci yow ak ki nga xamante ni moom moom la fal. bon dañuy ñëwaat ci ah. Amérique ba léegi parce que euh, li nga xamante ni ñu ngi ko doon wax sànq sax ci communiqué bi nga xamante ni Joe Biden génne na ko c'est vrai yi aussi dañ naan royukaay leen ci wàllu démocratie bu doon Afrique tey. coow la encore coow coow la ne kuréel maanaam président boo xamante dem nga ba daanaka di naax et cetera mais il a fallu ñu teg ko pression ngir mu daal di reculer donc Amérique du toujours rek lañu leen mën a jàppee comme des démocrates aussi. xam nga dañoo may Amérique dañoo nangul amerique lu ñu nangul kenn fii li ñuy xasee suñu chef d'état yenn yi ñu bëri ci seen âge la mhm. du sax yàgg ci pouvoir ci seen age ci seen age lañ leen di xasee soixante-dix ans Maguette Khoubida sa moom la ñu fal dem nañu ba fàttalikol élection Algérie président Abdelaziz Bouteflika avant muy génn àdduna élection bu mujj bi moom xamul sax lu xew campagneul ñaari apparition yi mu def <laughs> ci fauteuil roulant lañ ko teg. Hmm. moom xamul sax lu xew autour de lui parce que naax na xamul sax ñi mu koy nuyu xamul ñan la moom xamul sax lu xew mais parce que gëm nañu coefficient personnel ñu tabb ko. Hmm. mais bu ñuy xas Afrique ak pays sous-développés en général âge président yi la ñuy wax. Amérique mu ngi nii Amérique l'offre à l'humanité le choix tànneef ci diggante ñaari màgget. nañ ko waxee noonu màgget yu xubidaas. 78 mm-hmm. ans. juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñett Donald Trump wax dëgg fa yàlla suñu paayee juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñett jàkka ji wala uuf njaboot gi la ñu nekkee. Mhm. ak Joe Biden 81 ans juróom-ñett fukki at ak benn ci ñu war a choisir ci ñoom ci peuple boo xam ne c'est un peuple progressiste mun nañ ko wax gën a développé si àdduna bi. amuñu lu ñuy tànn lu dul ñaari màgget yi parce que mën nañ ko waxee noonu ah bu fekkoon ni fii la noonu lañ koy waxee. Mhm. choix boobu déjà c'est problème et en Joe Biden bi nga xam ne nii dañ koy njëkk fal mu tolloon ci juróom-ñaar fukki ak justement juróom-ñett yi nga xam ne moom la Donald Trump am waroon nañoo sooraale ni kat kii xëy na benn la mën a def du mën a def ñaar parce que ci kattan gi rek soo ko xoolee di nga xam ne kii du mën a def li ci jaaxle kay mooy lu tax ñëpp xalaat ni góor gi mënul dem moom rek xëy na moo yaakaaroon ni mën naa dem soo xoolee image yu mujj yi dana Joe Biden buy dox garde corps yi dañuy pare pour capter ko. Mhm. parce que ñu ngi yaakaar chaque fois dina faqasal wala dina daanu. bu yéeg avion sax c'est-à-dire dina yem kersa ni nga xam ne noonu lay yéegee te loolu image boobu bu doon image Afrique la. mais ay ay soas ngeen. Euh, màgget bii mënatul dox amatul kattanam. donc dañuy waral di bàyyi aussi ñun di bàkk li nga xam ne moom la ñuy bu buñ ko gisee feneen rafetal ko ni mu ñaawee fii noonu la war a ñaawee fële. te loolu moo ñu am sañ-sañ aussi wax ci Amérique def naa Sénégal toll na fi période boo xamante ni projecteurs yëpp ñu ngi braqué woon Sénégal amul chaîne télévision ci àdduna bi bu deful édition spéciale ci Sénégal amul. Hmm. muy Amérique muy France muy al muy feneen amul. ba seeni ambassade sax di defi communiqué di wax. loolu moo ñu sañ la aussi ñu wax ci Amérique amuñu droit de vote waaye nag mbiri àddina bi juste ci communiqué bi li ci li li ciy feeñ aussi mooy vraiment xam nga. Joe Biden mën nañu wax ni parce que bu ñu suivre affaire yi demoon nañ ba yaakaar ni day dem effectivement dafay dafay dafay continuer parce que la veille def na communiqué. ne hmm. maa ngi waaj a ñëwaat en hmm. campagne. et je vais repartir. donc da nga naan kii moom waajul bàyyi. Hmm. mais loolu yëpp surtout qu'est-ce qui s'est ba mu ce qui a dû se mooy. un Amérique xam nga donateur yi maanaam ñiy joxe xaalis c'est très important parce que mm-hmm. campagne xaalis la ñoom ñoom amuñ ci complexe ñun ñooy nëbbatu fii mais ñoom amuñ ci complexe ñiy joxe sax dañuy wax ñaata la ñuy joxe te loolu la ñuy campagne c'est très important te nag dañoo jox cër ñi nga xam ne ay sage lañu wala ay kàngam lañ ci parti yi mm-hmm. muy républicain yi muy démocrate yi te boo amee ay kàngam yu mel ni ki Barack Obama dem ba wax ni sawaay xoolaata taxawaay xoolaatal wax dëgg fa yàlla ndax mën ngaa demam déet loolu mooy mënoo dem ak yeneen i kàngam yoo xam ne ni bokk nañ ci parti ñoom ñëpp wax nañ si Pelosi yi nga xamante ni nii ku ku ñu jox cër la ku ñu gëdd la mooy jiite sax euh, Sénat bi ci côté démocrate yi moom moom daanaka moom moo gën a sori woon sax ci wax ko bàyyil sëñ bi mënoo dem mm-hmm. donc loolu c'est très important bu mu gisee kàngam yi lâché ko quand même c'était un problème mais le communiqué quand même moi j'ai appris le communiqué était très travaillé vraiment foofu ngay gisee ni du moom rek du xëy na ñi mu àndal rek mais c'est très travaillé dans l'élaboration parce que communiqué bi daf njëkk a wax ni rek man dematuma mais fi mu gën a insister mooy dina consacrer temps bi des yëpp ci sama mandat bi pour l'Amérique loolu xam nga lu muy tekki. dafa doon waaxu xëy na critiques yi nga xam ne mënoon na jël ci camp démocrate parce que boo nee bàyyi naa mënatuma nekk candidat ñu ne la kon amatoo capacité sax diriger état bi. te polémique boobu bu juddoo woon ci républicain yi dina doon problème pour moom. moo tax c'était très important aussi d'élaborer ce communiqué de la sorte d'insister sur le fait que. en fait je renonce mais c'est pour me consacrer exclusivement à la fin de mon et c'est important et ça a pu couper mhm. l'herbe ah sous les pieds parce que les démocrates ont, les républicains ont fait monter cette affaire-là mais ça n'a pas pris parce que tontu woon na ci ba pare mais Ablaye ça n'empêche que euh, côté démocrate aussi il y a problème <laughs> quatre mois moo ci des xamaguñu kan mooy jàkkaarloo ak Donald Trump c'est loolu tamit doy na waar ci élection bu nga bu toll ni élection présidentielle. waaw bu ñu wax pour nit ñi ñuy comprendre côté démocrate soo koy wax mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci nguur gi tey. mooy waa Joe Biden mooy waa Barack Obama. mooy waa Bill Clinton. pour nit ñi gën a comprendre. républicain yi mooy Donald Trump gën kaa sori George Bush. George Bush père et George Bush fils ñooñu ñooy républicain yi. Mhm. mais cas bi nga xamante ni effectivement Malick doy na waar trop. ci ah, cas boo xam ne yaa yor nguur. xamoo ko kuy jàkkaarloo nga dem ba mu des ñetti weer. Hmm. lu manqué ñeenti weer xamoo kuy dem élection mais xam nga lu tax parce que Amérique dafa am benn tradition. Hmm. vraiment du ñuy faral di werante ñoom ci président en exercice werante ci ndax day nekkaat candidat am déet. c'était presque ak acté d'office que président bi nekk en exercice moom day wutiwaat hmm. loolu duñ koy faral di xëccoo ñoom d'un camp comme dans l'autre duñ koy faral di li ci bees rek mooy li mu indi incapacité wu Joe Biden pour wuti ji beneen mandat ak âge bi moom am 81 ans mu waroon a jeexal ak 85 ans bu fekkoon ni gañe na déjà ak état physique bi mu nekkee nii nii nii nii nii ba pare yàlla nattoo ko ci jamono bu nga xam ne ñu ngi naan mën mën naa mënul mu Covid. ci la Donald Trump sax après bi mu génnee ci attentat bi nga xam ne ni euh, tentative d'assassinat bi nga xam ne nii rëcc na ci. nit jéem koo faat yàlla musal ko bal bi bal bi laal ceru nopp bi loolu daf ko daf ko gën a daf ko gën a yëkkati gën ko dooleel mais li nga ciy dégg rek mooy incident de parcours bi tax amaguñu candidat mooy moom moo nekkoon candidat légitime te Amérique noonu lay faral doxee waaye nag fait nouveau bi mooy âge bi moom ak incapacité bi terewul nag am nañu appareil boo xamante ni nii ñetti weer lu ne xaj na ci pour ñoom. est-ce du doon lancé d'accord Ablaye euh, certes donc dañuy wax li nga xam ne moom moo di wàllu euh, mondialisation lu xew amerique donc ter ci euh, Sénégal wala bokk mu saawan ci àdduna wërngal këpp mais élection yi ci réew bu États-Unis lan la ñu mën a jàngal ñun ci réew mi. bëri na xam nga boo xoolee on reviendra pas sur le sur le débat bi nga xam ne ni moo nekk fii Amérique dañuy faral lu fa xew. baax na lu fa xew naa gis en tout cas nit ñi opinion bi noonu la koy faral di jàppe pourtant am na lu bëri loo xam ne dañ koy def safaan la war a doon pour fii mais boo xoolee ni nga xam ne noonu lay fi yëf yi di bindoo Amérique moo mën a assumer dem campagne def ko mbiri famille foofu so mënoo sax campagne par exemple te xamuñu mhm. sa soxna ak ñaata doom mhm. xamuñu c'est-à-dire transparence bi nga xamante ni nii moom moo transparence rek la vraiment du leneen du pipolisation du leneen mhm. mais loolu c'est très important parce que quand gis nañu ci suñu réew yi léegi léeg ñu fal nit ba dem ba yaakaar ni ca biir néeg ba sax la ñuy jëlee ay décision donc c'est important aussi ñu xam ka nekk ci décision yi bu nit choisir nag bañ a fësal soxnaam wala ay soxnaam parce que léegi il faut parler comme ça ça peut un choix mais pousser la transparence jusqu'à ñi ngay nekkal ñu xam ñan lañu ak lan lañu ak luy seen wàll c'est pas une mauvaise chose daal l'absolu mm-hmm. li ñu ciy jàngat mooy ñoom dañu ko assumer soo xoolee par exemple Donald Trump Donald Trump c'est compliqué parce que dañu xam ndax Donald Trump bi nekkoon président la ñuy wax parce que il faut le rappeler dafa nekkoon président Joe Biden mi moo ko gagné mandat jaar fi mu ñëwaat di wutaat président loolu xawul nuru ak situation wu. Sénégal par exemple xam nga nee nañu plus de deux mandats consécutifs mais bu mandat doxee ci diggante bi ku nekkoon président mën na ko wutiwaat waaxuma 2029 mais lu ne xaj na ci parce que dafa am scénario boo xam ne àdduna bi daf ko daganal muy le scénario à la russe. bi Vladimir Poutine jóge président denkaane dénk ko premier ministre am mu téyal ko foofu tamit mënul woon a continuer mandat yi successif la woon. Mhm. dénk ko ko scénario boobu gis nga ko dafa mujj dagan ci àdduna bi dañuy nangu ni scénario à la russe. Mhm. ñu nangu ko fii tamit daanaka c'est un peu même chose en fait Donald Trump bu demee jóge woon fi y a quatre ans. dellu siwaat dafay créer une sorte de du ma wax jurisprudence parce que du loolu exactement mais dafay dafay xaw a daganal boobu ci ni bon su su ko Amérique defee ku mu neex mën nga koo def en même temps yoon euh, terewu ko moo tax xëy na nit ñi dinañu pousser la reflexion dans nos pays comme dans d'autres c'est possible surtout dans nos pays pour li tax ñu limité woon nit ci ne mënoo def plus de deux mandats consécutifs ñu pousser la réflexion ba ne boo xasee ba jaar ci deux mandats consécutifs doo dellu si waat c'est une réflexion j'ai pas de j'ai de sentence là-dessus mais xëy na li taxoon ñu def ko pour bañ nit ki quand yaakaar ni moom moom nguur gi dem ba nguuram jeex mu dénkaane war a dellu soit jaar ci porox ndollu xëy na bu fekkee ni loolu dafa war a am on peut pousser la réflexion ba ëllëg ñu changer mais ñoom Amérique li tax soxlawul parce que noonu la ñu suuxoo te assumer nañu ko regardez l'histoire de la famille par exemple fii sa pose problème Donald Trump cherchez la famille toute la famille est autour soxnaam alors c'est d'ailleurs l'épouse la moins politique vraiment de presque toute l'histoire des États-Unis Ivanka moom vraiment bokkul ci ñi nga xam ne nii fës nañ trop si nguur gi xam nañ ne nag soxnaam la mais doom yi Donald Junior Eric ak Ivanka seeni seeni ñi ñuy séyal sax. goro yi goro yi sax ñu ngi ci autour de Donald Trump te léegi li gën a garaaw ci ren ji Donald Trump dafa fexe ba ñooñu yeppoon yematuñu naru ñoo nekk rek ci appareil d'état bi. Mm. parti bi ci boppam la ñu am ay responsabilité di piloter pratiquement mu imposer leen. candidature am parce que ñoom ñooy responsable parti bi ñuy financer aussi ay xaritam lañ de premier cercle alors si c'est décomplexé là la je jeune dis pas que ça doit l'être ailleurs mais au moins au moins le la transparence c'est important en fait en fait loolu moo ci gën a important importance transparence nit ngay def di bañ a nëbb boo falee nit parce que sa mbokk la nga assumer ni kii sama mbokk la maa ko fal mm-hmm. loolu je pense non, que c'est très important Ablaye j'aimerais bien qu'on avance parce qu'en fait là euh, je comprends tout à fait ce que ce que tu dis mais c'est aussi par rapport au contexte aussi ce qui se passe aux États-Unis ne fait pas foi ici ici il y avait un contexte il y a eu certainement ouais, des ouais. promesses avant d'y arriver ils ont promis la rupture et c'est peut-être par, par rapport à cela justement que que que que toutes ces que que que, que ça, ça suscite de la polémique en tout cas mais ñu ñëw ci nag xam ñu jigéen ñi nag foog ñu waxtaanee suñu jigéen bii nga xam ne dañuy ñaan yàlla nag mu nekk président des États-Unis parce que c'est possible ah, ñu taxaw ci taxaw ci ci ci ci Kamala Harris <laughs> ah mi euh, nga xamante ne en 24 heures chrono euh, elle a quand même réussi à obtenir millions de dollars ce qui est quand énorme en 24 heures. Je, je, pense, que c'est très important. C'est pourquoi je disais que la stratégie mhm. de Joe Biden était très huilée. Et ça s'est fait en deux temps. Premier temps, sa déclaration, les gens se sont dit, mais pourquoi Adoubéoul ça Je pense que c'était très réfléchi de le faire en deux temps. Parce que de laisser le temps de digérer sa communication, sa renonciation. Parce que si Adoubé Kamal Harris, renonce, rénonciation, mhm. on ne parlerait pas d'elle. on ne parlerait que de la renonciation. Mmh. c'était très intelligent de le faire en deux en temps. deux temps ñu digérer renonciation ba pare muy door a defaat un autre message. pour mmh. dire j'apporte mon soutien. à, à ma vice-présidente. Mmh. évidemment ci jaar-jaar rek ci jaar-jaar rek wax dëgg fa yàlla def na lépp. juge la jaar jaar jaar yëpp am na ko mm. et puis aussi symbolisme bi mu doon pour moom ci originam am c'est très important jigéen bi mu doon évidemment Hillary Clinton a Mixité. échoué à ça ouais. d'être présidente ñu fàttali ni Donald Trump moo ko gagné woon ci élection boo xam ne li mu yéeme woon àdduna bi ci la ñu dékku bëri découvrir ni. le vote populaire ëpp ay ëpp ay voix taxul nga gagné élection américaine. les grands électeurs grands woon na ko lu ëpp millions yi voix deux millions bu ma fàttewul mais terewul Donald Trump moom moo gañoon di élection boo xam ne c'est resté au travers de la gorge des démocrates moo tax revanche Joe Biden aussi neexoon leen. waaye revanche sur la revanche aussi je ne sais pas c'est seul l'Amérique a le secret de nous produire des choses comme ça. Mm -hmm. évidemment bu dee ci ñoom la. Euh, bon quelles sont les chances euh, quelles sont les euh, chances de Kamala. elle a de réelles chances parce que elle a un appareil l'appareil qu'elle a c'est l'appareil du parti au pouvoir des démocrates lu mu mën di doon am nañu seen vivier am nañu seen dëgër. les aussi voilà et, et, et ça je, et ça il y a quelque chose qui est très différent dans un autre pays qu'on connaît peut-être un peu mieux ou plus proche historiquement, la France, ils arrivent à faire ce qu'ils appellent le front républicain contre, par exemple, le Rassemblement national. Même si le Rassemblement national arrive à les beaucoup de voix, premier même au premier tour, mm -hmm. aux États-Unis, ils n'ont pas ça. Parce que aussi, c'est assumé en fait. Cette, euh, cette droite symbolisée par Donald Trump, c'est assumé. À la différence d'autres pays extrême droite assumé wu ñu seen li nga xam ne moom la ñu doon mais foofu c'est assumé quand Donald Trump assume forcément il met parmi ses premiers projets fermer la frontière cette fois-ci moom ça ne va pas lui échapper mm. fermer la frontière deuxième chose décision deuxième décision bi nga xam ne wax na ko mooy OTAN OTAN moom boo moytul mooy le traité d'Atlantique doon nga xam ne Amérique ak pays occidentaux yi ñoo ko bokk tey qui s'oppose un peu à la Russie mettre ça par terre comme il avait mis par terre les accords de Paris nga xamante ni c'est très important quand même maintenant Kamala Harris euh, Sarah pour te faire plaisir évidemment elle a de réelles chances parce qu'elle a un appareil elle a été dans l'ombre de Joe Biden c'est pas la vice-présidente la plus flamboyante quand même que l'Amérique ait connue mais elle a été une femme de pouvoir de poigne elle a de réelles chances parce qu'elle s'appuie sur un appareil quand même évidemment le temps est court Mais c'est peut-être ça sa chance, parce qu'elle n'aura pas le temps de faire des faux pas. Il faut juste capitaliser sur ces trois mois là mu doon trois mois yoo xam ne yu intense yu danse lay doon. Mhm. et puis si les Sénégalais votaient si on votait je pense que <laughs> élection Amérique loolu mooy particularité. bu doon àdduna bi mooy voté. alors <laughs> ce ne serait jamais le résultat. En, en, de l'Amérique en, en tant que telle. entre-temps le doyen Alioune Tine <laughs> fondateur d'Africa Jom Center nous a rejoint euh, bonjour doyen c'est un plaisir de vous retrouver euh, dans la matinale. bonjour Sarah. alors avant d'en venir à, à la rubrique invité moo ci topp sax mais ñu may la rek nga yeggali tout à l'heure yaa ngi wax ne la la chance de Kamala Harris ça pourrait être les abstentionnistes. waaw loolu de lañ wax am na ñoo xam ne daal dafa mel ni entre Biden ak Trump c'était presque mun mënuñu choisir. Hmm. quand Kamala sort il paraît que les abstentionnistes je pense que ñu lay gën a ciblé. foofu am na chance ak minorité yi aussi. la plupart des minorités. nga xam ne Trump dafa assumer si vous voulez d'être le candidat si vous voulez des suprémacistes blancs mm c'est très clair mhm. ak li nga ko wax li nga wax léegi te la là aussi c'est la stratégie des populistes xam ni c'est eux et nous moom ci boppam mhm. day wax système bi <laughs> day wax système bi lay wax comme ni ñu koy waxee fii système bi nag système bi dafa feebar hmm. waaw te système bi feebar bi américains yoo koy gën a wax sax que occidentaux yi yeneen bi c'est incroyable ni système bi feebar système néolibéral bi ci boppo mo feebar. waaw ndax France ñu di xëy rek président bi tas assemblée ba moom comme li xew Afrique donc ñun est-ce que. dinañ ci ñëwaat sax ah, <laughs> le doyen a annoncé la couleur parce que intervenir woon na déjà euh, si jàngat bi euh, moom la ñuy recevoir moom la ñuy dalal euh, tout de suite hein ce sera c'est l'invité bien sûr de cette matinale et nous le retrouvons tout de suite. yaay yaa ngi